xaaral sànq da nga ne euh, li premier ministre wax ci réunion Diomaye président bi manœuvre politique la alors kan mooy manœuvrer parce que premier ministre dafa dem nekk ndawal président de la de la république yow nga gis ne euh, l'idée c'est de c'est de dissoudre tout le monde dans pour mën a dem élection 2029 alors lan mooy sa appréciation est-ce que le premier ministre et le président de la République sont sur la même longueur d'onde à propos de Diomaye président est-ce que c'est est-ce que da jàpp ne c'est le premier ministre moom mooy def manœuvre politique bi wala. mais man loolu la gis c'est le premier ministre, pour man parce que parce que boo nekkee ak say say say euh, say euh, euh, responsable politique mais il faut leur parler il faut un dialogue franc. woo leen. c'est le premier à l'insu du loolu premier ministre mooy président PASTEF. waaw le président de la république n'est plus de PASTEF. qui a intérêt à ce que PASTEF évolue c'est le c'est le premier ministre ça c'est évident. c'est lui qui a intérêt à ce que PASTEF évolue mais nañu ko wax bëggatuma gis pro ay président réunion bi ñu njëkk a def au niveau de de de de King Fahd mais na ñu ko wax ku nekk am fay fay dem les gens font leur choix cette cascade de déclaration yi ngay gis fan yi gis nañ sax ñoo xam ne bokkuñu woon Diomaye président comme euh, Mame Boye Diao mu ne il soutient Diomaye président il soutient maintenant c'est pas Pastef mais ça dit c'est un choix loolu kenn mënu ko kenn mënu ko tere Pastef est un parti politique qu'il veut faire évoluer il en fait son instrument pour être pour être élu en 2029 c'est ça qu'il veut ça c'est légitime mais na na ànd ak na ànd ak élégance il faut de l'élégance dans les gestes parce que mënoo fexe ba ñëpp nga force leen ñu dugg Pastef. je mais ça inélégant mais est-ce que daf leen forcer est-ce que dafa euh, agir comme si bëggatul jommaay président parce que moom dafa ne euh, bi ma déggee seen coow li j'ai essayé de de recouper un moom dafa ne délai yi xat na dañuy dem élection am nañu expérience su tabax. euh, coalition defar liste ni mu mettee ils n'ont le temps on n'a pas le temps le 28 war nañu euh, déposer li nga xam ne moom mooy les les listes dina copter des leaders de la coalition jomaay euh, président mais nañu demee ci bañeeru Pastef et il a même eu l'honnêteté de dire euh, lan moo tax mu xalaat nañu dem ci euh, bannière Pastef mooy ne c'est pour éviter que comme niñ ko yàgg gisee ci législature yi nga yóbbu nit assemblée nationale nga joteeg moom mu démissionné dam nekk euh, euh, député non inscrit wala ñu dem tax sosaat beneen groupe parlementaire fragiliser majorité bi nga bi nga xam ne bi nga xam ne amoon na ko. c'est ce n'est pas un discours audible. waxu politique la. Ah. parce que délai bi ni mu gàttee ci ñoom la parce que depuis les quatre mois bi ñu déposé document de fonctionnement bi bu nekkoon en fait il y avait une sincérité. ci continuité bi ils auraient dû convoquer les gens ne leen écoutez nous sommes d'accord avec le document mais bëggatuñu coalition bi existe on met fin à la coalition mais on nous a mis ci benn situation boo xam ne tu es de choisir depuis quatre mois nga defar document xanaa dama ne premier ministre chargé na au point que amul benn 17 heures 18 heures ou 20 heures mu recevoir une coalition deuxième aspect ñun bi ñuy signé document mais on a signé libre présidentielle 2024 bi li ci xew yëpp ku doon changer idée wala ñu war a corrompre ci présidentielle nga ko def mais les gens ont pris leur courage ak ni Macky Sall amee woon doole ak ni mu amee woon pexe pour ñëw signer ne on est souteneur de la coalition Diomaye président donc boo ñëwee fii nga ne il se peut qu'il y des problèmes de confiance ñu trahir ma mais pour man en fait c'est manquer de respect aux gens. mais c'est pas manquer de respect. non si si c'est du réalisme politique. c'est pas du réalisme parce que loolu dañ ko yàgg gis à l'assemblée à l'assemblée à l'assemblée nationale. mais yàgg ak ñeneen peut-être coalition mais c'est pas cette coalition là. à la limite parfois mais ay nit ñoo fi nekk. ay nit ñoo fi nekk ay hommes politiques ñoo fi mais nit ñi bokk ñu mën de sama bopp laa et des hommes politiques qui pire encore qui étaient avec euh, kazak. ku ci nekk sa bopp nga xam li ma wax dama ne. bu nekkoon ne les rapports étaient sincères les rapport étaient des rapport en fait réellement fondés sur le respect doo xaar ba veille élection législative il restait dix jours nga ñëw ne damay copter quelques leaders nan nga leen di copter sur quels critères est-ce que waxtaan ngeen ci critère yi avant deuxième aspect ne damay nommer dans la coalition euh, je vais faire beaucoup de nominations mais c'est en contradiction ak li ma doon wax c'est une forme de corruption politique man noonu laa ko jàppee. mais Émile nag da ngay waxal sa bopp. ah non c'est une forme de corruption politique ah si parce que quand tu dis aux gens dina après élection bi dina leen nommer mais c'est comme si di rester dans la coalition jàppale leen ma dina leen nommer yow da nga am say convictions politiques am sa gis-gis politique le premier ministre il est réaliste politiquement xam na ne ña farankulaay coalition Diomaye président ñu ci bari post la ñuy xaar am na si ñoo xam ne ñu ngi commencé di murumtu euh, am na si ñoo xam ne ñu ngi wax fun ñu ngi waxee gauche waxee droite am na ñuy menacé bu ñu leen joxul poste dañuy dem seen yoon constituer une nouvelle opposition contre le régime da ngay waxal sa bopp man c'est pas mon cas. ah c'est pas mon cas c'est pas pourquoi j'ai dit rejeté naa bépp coptation pour député ça ne m'intéresse pas parce que liggéeyal askan bi soxlawul tout le temps nga taxaw ci.